dina ma jafe lool tey ma sant kenn ndax bég ndax wax dëgg yàlla xamoon naa fi ma tollu nit ñi waaye xaw ma woon ne nag toll naa leen fii maa leen di nuyu di leen gërëm ci turu sëriñ Mountakha Bachir mi nga xam ne mooy suñu xalifatul am fii tariqal muridiyya di nuyu sama borom kër ak samay bokki dëkkandoo di nuyu mbooleem kuy yeewoo ci département Mbacké sagal nga sagalati ngeen ma sikkalati ngeen ma ndax yaakaar naa ne kuy làng di ndaw laaj ndawtal ku ne war ngaa xam ñaata nga leble ak ñaata nga war a fay man natt naa sama bopp ba xam fi ma tollu ci yéen man lii bettu ma saal bii ku fi masa woote dangaa woo fanweeri responsable yu bokkul boroom dajale leen fii ñi fi nekk ñépp man la man Mariama Touré kon yaakaar naa fii bu ma fi jógee dinaa gën a laxasaayu doon seen baay faal di leen muritu di leen tarbiya ndax tey saal bii ñi fi nekk duñu ay ginaar de ñu leen di suy pepp ñu di leen topp maa gënoon a mën a jënd ay hôtesse waaye jënduma hôtesse de fii ku fi woote dangay jox nit ñi ay mbubb ñu doog laa wuus ma woo leen ñetti fan a ngi nii damaa sibbiru tëdd ci sama kaw la lii lépp nit ñee ko ordonné kon aw seen fay maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm su ma bëggee lim dinaa juum waaye duma matal ndax sama xol tooy na tooy goo xam ne wax dëgg yàlla salle bii bi ñu ko defaree ba tey man maay première benn responsable bu engagé salle bi def fi lu toll nii fukk ak juróom ñëw fekk salle bi fees nit ñaa ngi ci kenn amul foo taxaw sagal ngeen ma maa bëgg samay bokk waaye samay bokk ma bëgg ba jeex tàkk maa bëgg waa Touba waaye waa Touba ma bëgg bam jeex tàkk ndax liy bëgg gi mooy damaa nekkoon ci parti di ca liggéey liggéey bu rafet borom parti ba sagal ma bëgg ma lool teg ma foo xam ne jàppoon naa ne man du ma mën a génn ci parti di duggaat ci benn parti ndax ay valeur la ma téye woon muy président Pape ma di ko sant di ko gërëm di ko wax ne may na ma ba valeur yi ma incarné woon ma matal ko ci parteem bi te ñaawuma ci benn yoon ku ne xam na ne man damaa waxoon ne bi may dugg ci politique du dugg ci politique ndax intérêt ma ànd ak président Pape mu téye ci ay valeur ñu ànd ànd bu rafet tey bu doonoon candidat toogaa jotaay bii du am waaye président Pape Diop doonul candidat te woowu ma it ne ma toppal kenn kon am naa droit tànn meilleur choix meilleur choix boobu nag dafa woon naa ne amatul ci senegaal ba tax ma ni woon sax boo moytuwul damay far def ni sama leader rek toog jàpp sama njaam waaye ñu déedéet ma waxtaan ak ay mag ñu ne ma bu ndox tuuroo bul toog di toon ni baax dangay rootiwaat may wër choix bu baax dal ci meilleur choix dal ci meilleur profil kooku mooy kan kooku mooy Thierno Alassane Sall kooku mooy Thierno Alassane Sall Thierno mooy kan mooy ki ñu ne signal pétrole bi ñu du ma sama doomi réew kooku mooy Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall mooy kan la fal ne ko 25 lay fay mu jàkkaarloo président de la république ne ko sama réew tolluwut fu muy falee fayee ay doomam 25 millions ko def ko 5 millions kooku mooy Thierno Alassane Sall xanaa kon man maa tànn meilleur profil xanaa man maa def choix baax ci réew mi sama doomi réew nangul ma ko doomi département Mbacké nangul ma ko laxasaa ne ma kooku ñun dañ koy delloo njukkal bu ñu ko amoon ci Sénégal suñu doom yi di dem ci géej gi di dee dinañ am lu ñu desee ci réew mi suñuy doom mën cee dund kooku mooy Thierno Alassane Sall président Thierno ginnaaw bi ma sama bu baax booleeg moom ne ma moo ko découvrir wëri ko ba gis ko delloo ko njukkal ne ko njaboot bu ma am ak lu ma mën dinaa la booleeg ñoom ndax yow yaa yeyoo delloo njukkal Sénégal bi ma war booleeg yow sama xol sedd na ndax man maa waxoon département Mbacké ne man du ginaar bañ may suy benn ndax politiciens fii ku fi ñëw ku ne dañ laa jox ay millions nga doog fee ñëw man leader bi may jàppale yëgul ndaje mii ma woon tàgguwuma ko ci keroog bi ma tànnee choix bi ba tey woowuma ko téléphone ñetti yoon laa ko ma sa jël téléphone moom Thierno damaa xam ne dafa lebal Sénégal loo xam ne dafa jot ñu fay ko ko moo tax ma jël sama engagement ci moom ànd koog yéen. sëñ Mbacke Lo maa ngi lay nuyu di nuyu Malick Thioune engagé ci man waaye nag du ngeen ko yàq benn yoon tey damay def déclaration fii moo tax ma engagé fii waaye maa ngi leen di jox rendez-vous bu gaar ba ndax man sama mbooloo xajul ci saa. nga woowu ma nag benn ne ko kaay soutenir ma mel man maa maa ma maa nekk salle ak samay bopp ak sama nit kon man dal ngeen waaye nag yàqu leen ndax bu nit amatul valeur ba ay doomi réewam di dee ma def sama de yëgul déclaration bi maa kii dañu koo amee njukkal dañ ko koo a delloo yéen nag laa ci yaakaar ne yaa représenté ci sa biir kër kii lañu fay 25 yi te jox ma 5 yi maa ministre yi ma àndal yépp 5 doy nañu suñu réew attanul di fay ministre 25 millions xanaa kii ñoo ko ameel njukkal. il est temps nag ñu xam kan mooy Thierno Alassane Sall bu ndox tuuroo boo amee bàq doo ko jariñoo dangay dem rootiwaat ginnaaw xale yi dañ leen a jaay doole foqati seen xol te mënu leen ci dara dellu leen ci yàlla ngeen ngemb Thierno Alassane Sall jox ko réew mi mu indi changement ci réew man ku ne xam na ne kuy seet si responsable ku ne wër nga ma waaye duma leen décevoir mukk ndax keroog ba may tànn ku ma jàppale ànd ak moom liggéey ak yéen gisoon naa fi mouvance présidentielle bii nga xam naa ne ñoom du ñu jëme fenn dañuy diigal ñuy ñàkk suñuy doom te kenn du leen dëjël suñu doom yi jeex nañ ci géej bi bu ñu recensé waatoon tey du ñu mat 14 millions d'habitants ndaw ñëpp a ngi ci biir géej maa ngi massawu ñëpp di jaale boolem ku jur doom mu des ci géej bi lu ma metti la waaye nag ma leen di moytuloo 5000 yi ñu leen di jox. kostum yi ngeen di jox ngeen di ko sol moom ngeen jënd seen ngor moom ngeen jënd seen ceeb bi ñu moom ngeen jënd seen diwlin ñu yokk laxasaayu leen kenn ku ne représenté Thierno Alassane Sall ci sa biir kër ñu indi changement ci biir réew mi waaw nan la ñuy ay nit fukki at ñaar réew mi gën a bon réew mi gën a yàq ñu wëlbatiku ne dañ ñuy indil ndono xanaa waa Sénégal dañuy nelaw lan lañ fi woon président Ablaye Wade dañ na woon dafa bëgg la ñuy falee nit fukki at ñaar defaluñ lu baax mu ne dañuy indilaat keneen di ñu ko fi ñu di ko nangu xanaa ñun dañoo def ci nguumum njaam dama ne nañ yeewu maa ngi sant samay bopp bu baax di sant mboolem journaliste ak communicateur traditionnel journaliste département Mbacké bi du ñu ñuy ger du ñu ñuy jël ba ma jógee ba tey da ngeen a ànd ak man ci sama combat. fu ma jëm yéen ay def seen carburant jël seeni caméra ñëw dékk ma ko te xaaru man dara ndax xam ngeen ne man waruma xaalis man amul benn politicien bu ma mës a gis sa buntu kër kenn mësuma recevoir benn leader bi ma àndaloon juróom-ñetti at yii yëpp tey laa mës a génn buntu këram dugg ci Thierno Alassane Sall te maa ko tànn ndax day profil bu baax. na leen leer ne déclaré. doom yi yërëm askan wi jigéen ñaa ngi def lu ne ndax ay coono ak injustice bu ñu leen teg benn doom mënatul a siggi xool yaayam communicateur traditionnel yi nekk ci département bi maa ngi leen di sant fu ngeen toll di wax ci man lu baax di ko def ci man te xaaru leen ci man dara ndax xam ngeen ne man duma lekk alali genn ku ne xam na ne man su ma daan tàmbali sama discours ci alxuraan laa koy tijjee ci laa koy dëjee waaye tey damaa bëgg a bégal samay fans moo tax ma may bongo yi ñu jàkkaarloog man waaye ku ne xam na ni su ma toogee sëñ Modou Mahfouz Mbacke mii toog ak sëtu sëñ Abdou Karim mii ak maam Cheikh Mbaye Mbuluga toog ak sëtu maam Cheikh Ibra Fall yi nii wëlbatiku di dëkk ay bongo damaa bëgg a bégal sama fans yi waaye man du nitu bongo kilifa gu ma woo ku ne dama ne man dëgg ati fecc taxumaa jóg waaye nag ni ngeen ko defee ak sama nit ñii lu ngeen leen defal rek sama xol sedd na président Thierno Alassane Sall maa la tàllal loxo ñaan Sénégal yëpp ñu tàllal ndax yow da lebal Sénégal lu la mënta fay ñëw naa indil la 2200 parrainage fa yebal Sénégal pare nañ pour ànd ak moom fay ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee du ma juum waaye du ñàkk nag ma cité ci ay quelques tours muy Seex muy Alla Diop Daaru Xuddoos di Seex Abdoulaat waroon naa def xaalis di Moori di Seex Fall ñii moom mënuma leen a bañ a cité sant leen damaa tëddoon feebar waaye ñetti fan ñoom ñoo coordonné lii yàlla xam na ko bii daanaka hôpital laa fanaan ñu liggéey liggéey bu rafet sëñ son yi mi ngi ñaan di ñaan ci baatin nee na ma jaral ma jug di ànd ak Thierno Alassane yaakaar naa du ñàkk ma juum waaye sama xol fees na kontaan naa Dior Mbaye gis naa ñëpp du ma lim Nogoy Njaay gaynde la jàmbaar Adja Mam Ndong mooy sama responsable des femmes Mam Ndong mooy sama responsable des femmes Nogoy Njaay Nogoy Njaay Nogoy Njaay Nogoy Njaay Nogoy Njaay